asalaamaaleykum suñu mbokk internet yu Texcom TV Bamba du jóg ci di leen jaajëfal sa su nek tay nak jeudi 2 juin 2022 ñu ñëwoon fi si Marona Frère Marona Frère nak doon bërëb bu nga xamantene ni kenn dootu ko présenté Joal Fadiouth bis ni ki tey nag ñu doon soppi bërëb bi ngi def ko agence bu Sonatel lepp lo xam rek wa dëkk bi dañu ko doon soxla ci Sonatel te ñu doon dem bo Mbour te kenn ku nek xamna ni. soo waree dem ba Mbour ñëwaat lu mu gàtt gàtt dina la dikkee 60 kilomètres léegi nag coono boobu yëpp monsieur Mansour Maron yombalal na leen ko lépp lu waay soxla rek lu jëm ci récupération puce ak abonement abonnement wifi ak problème bu mu mënta doon agence Sonatel bu Joal Fadiouth dina leen ci taxaw su ngeen fa demee nag di ngeen fa fekk équipe bu dynamique bu mën li ñuy def dinañ leen taxaw ci jafe-jafe bu mu mën a doon kon ñu digtal leen kàddu yi nga xam ne moom la ñu fa jëlee ñoo ngi sàkku ngeen di wéy di abonné ci seen bi Je TV Bambang man Ibrahima directeur régional des ventes du marché centre Je suis venu ñëw euh, pour accompagner suñu partenaire Mamadou Mansour Maron ci euh, lancement franchise franchise boutique ndax dafa jóge ci statut orange boutique léegi ñëw ci statut franchise boutique franchise nak, comme pour euh, mu gën l'air leer comme agence Sonatel bu est privé de gérer mais lépp lu mën am ci agence Sonatel yi leen gën a jege mel ni Mbour ak euh, Saly yëpp am na fi tey léegi à Joal à partir d'aujourd'hui ben client warul jógee Joal naan day dem agence Mbour Sonatel Mbour wala Sonatel Saly di fa wuti lenn loo xam ne war na am fi Ibrahima su ma la déggee daf mel ni ñun bu ñu bëggee xëtan tey jii ku bëggoon def abonnement wifi fi mën nga ñëw fi jaru ngay dem Mbour exactement léegi lépp lu Sonatel di jaay muy manam jënd piis jënd portable jënd internet def def abonnement Orange Money lépp lépp lépp lu Sonatel def def même def réclamation lépp lu mu mën def fenen lu mu daan def fenen war nak ko a def ci fii ci agence Joal. liguey bi ban lay tambalé ak ban lay tejj waaw liguey bi mom dafa mel ni Sonatel rek liguey bi 7 h 45 lay ubi boutique bi di 8 h manam le client di dugg ci daal di tejj 16 h 45 bés bu ne vendredi da fay liguey ba waxtu julli ba 13h mu tej 15h mu reprendre pour wàcc 17h. ki moy Mansour Mor yalla ki mo indi lepp li ñuy njàkk ci mooy njàkk moo xeex combat ba muy jaay pièce tàmbali yor saabu dem toog taxaw si ko taatu tali bi ba yàlla indi ko lii moo tax dañ ne doomu aadama loo xaar rek bu yàggee rek mu fekk la fa Mansour Manon tey ban mbégte nga am tey fii si Joal ñu defal la li nga xam tey lu ñu doon wëri mbuur di ko wëri sali rek léegi yàlla indi nañu ko Joal loolu ñuy delloo suñu jukkal loolu macha allah alamin alhamdulilahi bi ma sante yàlla julit yi yenante bi sallallahu taala alayhi wa sallam sant samay waajur Je suis am heureux de recevoir mon partenaire Orange En nga xam en 2002 ba 2022 li olof di wax naan lu yag 2002 ba 2022 20 ans ci ren ñu nekk di cheminer ensemble nekk ay partenaires lepp lo xam warna len ci sen walu ak population Joal Fadiouth sumalen ku demande demander 2002 ba jamono alizé jamono ay télécentre jamono ay euh, portable euh, abonnement 35000 25000 22000 ba tay abonnement ci 500 francs abonnement orange Nous ak ñom ño ensemble Nous collaborer mu nek collaboration bu franche man ak ñom ñu jappalé ma ñi persévérer ba population Joal Fadiouth am agence kon dama koy santé Orange lolu tay pour dina ko population bi parce que ñom ñoma jappalé nous sommes légui ñu may soutenir muy metti muy taw muy naaj muy

wala ci mbiru internet wala lépp loo xam ne ci ethnique yi la fi mu toll nii Joal lépp loo xam ne war na fi daje ci mbiru téléphone wala ci mbiru internet à travers Orange am nañ ko fii léegi. avantage yooyu moo nekk ne tey kenn dootu fi déplacé wuti di dem ba Mbour wala di dem ba Thiès wala di dem ba dakaar pour régler benn problème boo xam ne ci service su Sonatel la nekk maintenant à partir de tey la 2. képp koo xam ne amati nga problème ci orange boo ñëwee fii ci tableau orange boutique Maron et di dinañ la régleel saafaraal sa sa problème ba mel ni biir Sonatel bu dakaar wala bu Mbour nga nekkoon loolu mooy avantage bi nga xam ne tey population Joal Fadiouth am nañ ko boo xoolee ku doon dox 32 kilomètres aller 32 km retour té boo démé demee yend fa toute une journée pour régler ben problème bu ndaw wala ben problème bu ñu téggil la lolu kon légui avancement amna té nak nag de dëkku mérito parce que économiquement Joal tollu na fo xamné tay ji amna yu bari yo xamné war ñu ko di jéggaani lolu moy avantage yi nga xamné tay Joal am ko loolu avantage boutique francisée bi nga xamné na ci le bi ouverture heure à partir de 8 h jusqu'à quelle heure. non kay comme dañuy comme des professionnels dañuy comme Sonatel Sonatel wax client bi il est roi. client bi client bi xam problème client bi ko à partir de 8 h ci suba 8 heures ba vingt ñun ku ñëw fii soxla ay service ci fii ñii ci boutique orange di ko am parce que ñun fii lañ dëkk fii lañ xam fii lañ yaroo fii la ñu màggee kon population bi ñun ak ñoom ñoo far ñun ak ñoom ñoo bokk kon duñ amul heure sax daanaka mun nañ ko ba ñu wax ñun parce que suñu bopp la ñuy liggéeyal ku liggéeyal population bi sa bopp nga liggéeyal kon ñun amuñu heure heure bu ngeen ñu fëggee mu nekk loo xam ne si service orange

bon ñu nekk nekkin bu rafet yaa ngi dégg lu mu xam wax ma ko des fois ñu toog waxtaan des fois nag xam nga ay morom la ñu mais nit la bi nga xam ne ku ku baax la ku ku yëg ay mbokkam ku bëgg ay mbokkam bon liggéeyam nag yaatal na ko ba nga xam ne ñëpp mën nañ see gis seen bopp moo tax bësam bi su amee man du ma bett waaw ah, dama koy ñaanal rek li mu am nii yàlla gën ko yokk boo ku nekkee ci loolu laa koy ñaanal. Euh, Mansour li mu am euh, du du mbetteel si man du mbetteel parce que maa moom yàgg nañu depuis cinq ans ñu ngi nekk ñu ngi ànd ñooy defandoo suñu lépp donc tey su ma gisee mu am lu mel nii euh, du doon mbetteel si man dafa yàgg gëm boppam parce que Mansour ku ko xam. xamné euh, si rek et si on vous donne son parcours fa commencer? Euh, je pense que Orange ne pourra que le féliciter il est parti de rien du tout mais partir de rien du tout aussi c'est gëm bopam hein commencer si lu tuuti ba fait que fekk ci ko donc man du ki du au contraire on s'en félicite euh, de souhaiter di véritablement Limo mu am mu am leneen lu ko gën a lu ko gën a am solo lu gën a rëy lii donc en tout cas mu ngi noonu di koy ñaanal bu baax a baax. grand pap tey jii lan ngay wax askanu Joal si li point bi ñu mag bi ñu fi def lan nga leen di gën a encouragé ñaax leen pour ñu def ñëw ndax wutee dematuñu mbuur dematuñu fenn léegi Joal la ñuy yem nii. alors je pense que lii askanu Joal faju du ñu def lu dul di ko rafetlu rafetlu ko pourquoi pas simplement euh, lépp lu ñu mënoon a am lu jëmoon si orange dañ daan dem ba mbuur def aller retour déjà rek ne serait-ce que le déplacement di nga fay sa passe aller-retour dem et puis c'est du temps que tu perds et imaginez simplement pour changer une puce qui am euh, ki euh, Orange Money il faut aller jusqu'à Mbour donc souvent ça nit ñi dañ dan obligé une puce bi dem rek outat puce pour continuer encore le travail ce qui veut dire simplement que askanu Joal nous ñom ñoo ci gën de gis euh, je me félicite encore de voir que nous avons fait ne ñoom la jël ñu nekk Mansour c'était généralement nous avons fait Orange suñu amaan sax yenn difficultés yi dañ leen doon le ne leen dem leen donc déjà rek l'Olu, avantage pour Joal Fadiouth et pas seulement Joal Fadiouth mais tous les villages environnants parce que Joal a li mu ëmb li parce que a la commune de il y a 25 villages et on est très proche de Fatik. en réalité si on parle de il y' a Fimla qui est là à côté et nous, ñu ñëw jusqu'à jusqu'à jusqu'à donc c'est un grand avantage pour les populations de Joal de Fadiouth de jusqu'à Fimla donc on s'en félicite et xam nañ que euh, di ngeen di ngeen gis fii ak que ak di boutique bi dina pour recevoir qui euh, avons xalaat Orange dina xey ben bés ñëw tabax fi ben structure ñu délocaliser li yóbbu ko foofu man la lool gëm nako gëm nako en tout cas on s'en félicite di encourager bu baax Mansour si fi mu tek tankam foofu la yàgg na c'est vrai vingt ans ku ko nekk ak euh, Orange depuis Alizé moi je l'ai connu depuis Alizé bobu ben boutique bu ndax la yore won boutique bi ça faisait euh, euh, à peu près 4, quatre mètres quatre mètres euh, carrés et su je pense bien que mérite mérite il n'avait pas commencé ici il a commencé à si de ba il y a de cela 20 ans Il a ñëwee encore Amélie. Euh, ça ne fait que son mérite en tout cas nous on s'en félicite et on va l'accompagner donc comme ni ñu donc l'idée vraiment c'est de Sonatel au niveau de pour que population doit être soxla dem Mbour donc normalement les li nga vous ne soxla nga Sonatel récupérer puce de puce abonnement Orange Money dépôt retrait réclamation Les bonnes filles, ils ont été formés pour ça donc en principe ça devrait bien se passer quoi donc c'est vraiment pour cheval donc c'est Il y a une aussi, donc euh, comme ça que c'est pas parce que business la en fait ah donc euh, voilà. programme bi ñu amoon démb parce que dañu amoon audience amna lool motax ñu bari mais amna yene franchement ndax depuis lors kérok ma ngi senté ak Mansour ne ko ñun ci lo yëkëti rek suba ba ngoon ñu ci and ak yow parce que bu baax la vraiment Mansour nitu ñëpp la ñun nun mëni def dañ ci japp bu baaxa baax di informer encore ñeneen ñi nga xam peut-être ñu ci entourage bi té xañ na nekkuñu au courant dañ leen gëna informer ku ñu suñu nawlé suñu morom ñëpp inshallah contane nañ di leen ñaanal mu gëna avancer ba bés boo leen fi ñëwaatee mu doon lu rëy loo xam ne dañ koy feete comme ni ñu ko defee kenn bañ koo fee kenn bañ koo wutee ñu leen di ñaanal jàmm yéen waa Orange di wax kontaan nañ ci lépp nag ci ci transfert yi ci retrait yi ci woyofal bi macha allah des fois nga dem ba yenn heure yi sa courant jeex nga dem dugg sa Orange moo ne fay loolu yëpp possibilité boobu ngeen ñu may ci kontaan bu baax a baax franchement. donc ñu ngi remercier waa Joal yëpp population bi gis nañu autorité yëpp ñëwoon nañu. autorité administrative autorité coutumière yi ñëpp a fi toute la population donc li avons ñuy wax proximité ci administration décentralisation mooy que lu ñu là soxla de base nga indi ko ba mu gën a Nous nañ fi boutique mais dañuy yokk compétence boutique bi léegi boutique bi nu fonctionner même chose que l'agence Sonatel Le lu ñu doon def nous nañ ko def avant gars dañuy def 32 km, peut-être au plus, c'est 64 kilomètres parce que da ngay def ale retour ah ñëwaat alors que léegi mi ngi sa wey tànk da ngay ñëw rek gars yi gérer la ko def.